مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يذهل ما أرسل الرحمن أن يرسلوا يرسلوا من رحمة سخروا أو جهلوا فبالذي خصك بين الورى برتبة عن العلا تنزلوا إذا بالذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأل ما أرسل الرحمن أم يرسل من رحمة تسأل أو تنزل إذا بالذي أشتكي إن توقفت فمن أسأل التي ضاقت وصبر قضاء ولست أدري ما الذي أفعل من رحمة ولن ترى أعجز مني فما لشدة أقوى ولا أحمل aw Cheikh Ajar ma dib géwél moo ko yor ku sopp Serigne Sidi Ahmed jugal taxawee moo ko yor waaw waaw Cheikh Ajar ma dib géwél moo ko yor ku sopp Serigne Moustapha Jamil loxo yee moo ko yor waaw waaw Cheikh Ajar ma dib géwél moo ko yor sëriñ Moustapha yow da gore nga mokk yónneen Abdou Ndiaye Cheikh Ajar ma diw géwël mokk yónneen waaw waaw Cheikh Ajar ma diw géwël mokk yónneen ay waay ku ñu fi gi ñu ke maam ba nga gëm yaa di waaju du tee nga di njaa loxo yi ci kaw kër gi kat baram dafa fi jabu loxo yi ci kaw kër gi kat baram dafa fi jabu say si naa dootuma fay njolli naa say si naa dootuma fay njolli naa ku sopp sëriñ Mustafa jamiloo njolli naa ku sopp sëriñ Mustafa jamil loxo yee njolli Seydina yaatu ma ëpp naa dafa am jëkkër di wut far koy def dogoro am jëkkër am jëkkër di wut far ta koy def dogoro am jëkkër di wut far taalibe ayya Seyxana Ahmad بشرى لقاء إن المولى دين الهلال زائر خادم ويده من زائر قد ساد عن مواسم بنور بدر زائر jërëjëf si Malick jërëjëf si Demba jërëjëf لآخره قد هب عنا نشره كالنت في المبادئ المشارق إذا الجمال البصر وفوق ضرب شعراء من المنى إلى الإله إلهي ولا ناس been dimbul ci def saxal xaalis bi duma la ko xaalis bi soxna Zeynab moom moo ma ko jox waay man dapat bom naa dal may ma ci tuuti ndax bari na may ma ci lii la sa loolu dox ak maram ak ñi toog sama ñamu bët ndax man sama xel maa ngi tuuli seen bi ñaamal tuutal ma sama

سيدي توتي لا وحدوتي لا إليك فمرجوتني زينب إلقوه لكي يدفع بين فجعل فيه يا ولدي تعمله سيدي لا مرجع إليك dara doo leen ci taabu yi فارا تركا ذو قد فورا ناولت تابلت

يخرج عزت كما عنده كمال هو قدوة لمن اقتدى من وله وله كما منه كما هو قدوة شوف لمن اقتدى بدر بدر العلا فوزنا عن الخليل فوزنا عن الخليل أكرم أكرم بقر بالعارفين نوكاتهم وسرنا مجلسنا يا جامل الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا قد جاء قد جاء أنا قد جاء أنا قد جاء أنا قد جاء أنا قد جاء أنا قد جاء أنا قد جاء أنا فلقوا نجاة وقد نفى من صلح قد جاءنا ملكون جاءت وقد نفى قد جاءنا فرق النجاه فلا waxul wijhatana assalaamu assalaamu aleykum kiraaman kaati kiraaman kaatibiina yi ak yow waaye alayka kon alayka nekkatuñ fa nekkatuñ fa yonent bi nag yonent bi nag maasuum la moo tax assalaamu alayka yaa rasuulallahi man de xamatuma de nee moom moom moom moom sëñ Sidi Ahmed nee na moom day yëg di wax ñun dañuy yër di wax <laughs> xaddam mu ni sëñ Sidi Ahmed day yëg di wax ñun dañuy yër di wax soo demee ci aw daxul masaliki fii taarifi xayaati wa manaqibi Seydi El Hadji Maliki sama am Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Si moo bind téere boobu di ci nettali dund bàyyam Seydi El Hadji dafa am Cerno Saidu Nuuru ñaari seede yu mu seede ci Cheikh El Hadj Malick dafa ni inna Cheikh El Hadj Malick allahu huwa alladi tawalla taalimahu nee na yàllaa ko jàngal mu firi aaya bi wattaqullah wa yuallimukumullah wa allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullahi alayka azima yàllaa ko wax yonent bi ne ko dinaa la xamal loo xam ni doo toog ci daara di ko jàng waaye ña toog ca daara ja bu ñu gagee yàlla di gàgganti moo tax jàng ak xam-xam bokkul éduquer ak instruire bokkul yaakaar naa balaa ngay éduquer balaa ngay instruire da ngay wala déet wala déet. instruction instruction. éducation koy na éducation moo koy jiitu. al aalimu al aalimu ak al aarifu bokkul. bokkul de lu jar a bàyyi xel la. lisaaka sarraf naa naxwu baabika wijeet yi kon ñu ngi nuyu ñëpp man ne yonent bi oustaz dafa seeti benn saxaaba dugg këram. ni asalaamualeykum ndax sharia li mu jàngale mooy bu fekkee da nuyoo nuyoo gi soo waxee benn fayuñu la Sidi Mbaye lislaam dafa jàngale booy dugg ci kër di nuyoo boo nuyoo benn yoon fayuñu la yonent bi nee na tuuti nga nuyoowaat muy ñaar buñ la fayul nga taaxirlu nuyoowaat muy ñett mu ni nag buñ la fayul ñibbil ñibbil ñett ñett nga am Seydina Muhammad seeti saxaaba bi dugg këram ni asalaamu aleykum saxaaba bi dégg ko moom ak soxnaam ni loolu de baatu Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam soxna si bëgg a fay borom këram ni ko noppil bul fay mi ni ko yonent bay nuyoo de mi ni xam naa ko yonent bi toogaat diir nuyoowaat soxna si bëgg a fayaat jëkkër ji ni ko noppil mu ni ko yow xanaa yëgoon yonent bay nuyoo nee na dafay laaj benn laaj foofu mbooloo mi tontu ko ci seen ndax moom sëñ Sidi Ahmed si bu ñëwoon seen néeg kenn par kenn ci yéen wala kenn rek ci yéen taxaw ni asalaamaaleykum nga ne ma waaleykum salaam nga ni ko waaleykum salaam nee na moom sëñ Sidi Ahmed nu mu war a def war a def nee na lu mu war a def. nee na da ngay taxaw. da ngay taxaw nee na da ngay taxaw. ba ñu ne la bismillah ba ñu wax ni la bismillah. nga doog a dugg. soo duggee soo duggee. da ngay nuyoowaat da ngay nuyoowaat wala déet. da ngay nuyoowaat da ngay nuyoowaat. iza daxaltum buyuutan fa sallimu ala anfusikum taxiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba yàlla mu ni boo duggee ci biir néeg nuyul sa bopp Sidi Ahmed bu àggul sëñ Sidi Ahmed bu àggul ci jàppee xaddam mii ni boppam la gëmam wéragul laa tuminu ahadukum xatta yuhibbu li axi maa yuhibbu li nafsi alxuraan la ñu laal man sama sëriñ mii sëñ Sidi Ahmed ku ko waxoon dara ma dem xeex ak yow alxuraan nag lañu ñu laal junj doy na borom xel nee na suñu téere sëriñ si buñ ci waxoon dara réew mi tàkk kuñ fi waxoon sa téere sëriñ am na fóot am na fóot am na lu ci wérul ñëpp wàcc laal nañu alxuraana ah. lillati hiya aqwam te est-ce que xam ngeen ni kan moo sopp yonent bi fii sopp ngeen ko laal nañ yonent bi xam nga lu tax alxuraan ay yonent bi est-ce que xam ngeen loolu dama ni ñi ni bëgg nañ Seyduna Muhammad nañu yëg ni laal nañ yonent bi xam nga lu ta suñu yaay Aïcha dañu ñëw ni ko boo ñu doon résumé kan mooy Seyduna Muhammad dafa ni kaana xuluquhul quraan fële mi ni kaana quraanan yamshi bayna naas moo tax Cheikhul Xaaji Malik ni inna alqurana huwa almizaanu taarifu minhu ma xawayta min allashwaaqi waaye wasadami yàlla wax ñetti aaya ci alquran fa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaika humul kafirun xoola dafa xasru wax bi ku attiwul alquran yéefér nga ñun la ay lan lañ kon dañuy waxtaante xaj bekaay yàlla mu ni ku attiwul alquran yéefér nga ñun lan lañu fa man lam yaxkum bima anzala allah fa ulaika hum al yéen ñi jàng naxu xam ngeen al boobu aadatul xisri dafa xasru wax bi ku attewul alxuraan ñooñu ñooñu dong nga yéeféer ay tooñkat lañ ay faasiquuna lañ léegi ñun comme amuñu kàttanu attewoo alxuraan waaw léegi nañ ni loolu responsabilité état la ndax yonent bi nee na ñett ngi nii yàlla du ko jàppee nit yàlla du du la jàppee loo fàtte loo xamul ak lu ñu la forcé comme dañu ko forcé waaw léegi kan ci ñun ngay dem këram muy dund sharia àtte ci njabootam ñan ñooy def Dakar na dóor paa ah. du ñun ñoo koy def ñan ñooy jël ay jeu SMS di ko jouer nga xam ni tas nañ riba ci réew bi ñan ñoo koy def du doomu jullit ñi fa man lam yaxkum bi ma anzalallah fa ulaikumul kafirun moo tax départ bi fa la ne comme ñun alxuraan début bi lañ ko weddi ni ko ñun ñu atte ay tubaaba ñuy atte ak i luwaawu nit moo tax bu ñu laalee alxuraan comme ñun nañu noppi te ñuy dund alxuraan waxal alxuraan. li nga wax léegi nee na li ma wax léegi ci SMS yi. wax ne ñun ñëpp ci nee na dafay wax ni ñun ñëpp ci xaalis lañu jóge. ànd nañ nee na loolu mu wax est-ce que ànd nañ ci ñun ñëpp suñu cosaan xaalis la. xalifa nee na ndax nangu nga. ndax ñun ci xaalis lañu jóge ban ban xaalis. nee na daal xaalis bii CFA. CFA bi ci lañu jóge ndax ànd ngeen ci. Ah? xaalis xaalis. nit nit. ci nutfa la jóge spermatozoïde. lu ñuy wax spermatozoïde. dafay dafay jóge ci spermatozoïde. dafay jóge ci spermatozoïde. nekk lan. nekk fotis nekk fœtus. fœtus. jóge ci fœtus nekk. nee na jóge ci fœtus nekk. embryon formé wu doon nit doon nit. waaye lu ko def nut waaye lan moo ko def nut fa. spermatozoïde. spermatozoïde. lan moo ko ko def lan moo ko ko def. deret deret. deret bi lu ko def deret bi lu ko def deret. ñam ñam. ñam bi lan moo ko jënd xaalis. kon duñu xaalis kon ndax ñun suñu cosaan du xaalis. xaalis bu jógee ci. xaalis bu jógee ci. nawel de folie. wala bingo. wala bingo. nga jënd. nga jënd. ñam ci ñam ci. toggal la ko ci bingo. ñu toggal la ko ci bingo. nga lekk ko ci bingo. nga lekk ko ci bingo. deret bi deretu lan la bingo spermatozoïde ba spermatozoïde lan la bingo bingo doom bu ju bu juddoo doomi lan la bingo ndax dagan na te te loolu ci biir sëy lay am maam Cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu maam Cheikhul Xaaji Malick radiyallahu anhu dafay nettali ba yàlla di yónni yonent bi di ko jox alquran ay njëkk wacc Seydina Muhammad mooy iqra iqra nag dégg naa sëriñ bi nee tekkiwul jàngal ndax ki ñaan jàngal dafa fekk jàngut te yonent bi mooy markazul fuhumi wal maani ñun taalibe Cheikh na Tidiane yëpp ko gëm te ñëpp ko gëm ndax bés bu ne ñu ngi koy sikkar markazul fuhumi wal maani laka zaatul ulumi min aalimin xaybi wa minha li aadama asmaau sëriñ Babacar Sy danaan wax ni faq yi danaan wax faq yi du firi alquran nitu yàllaa koy firi xaaj bakaay nee na faq yi faq yi mooy jaawel alif laam miim. alif laam miim. lan moo ci tegu daalikal kitaabu. laa rayba fiihi. hudan ñana ko moom lil muttaqin mu ni iqra ay uzkur fàttalikul ndax am na luy nelaw ci moom yàlla bëgg ko déclenché ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ni ko iqra bismi rabbik alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalami allama al insana ma lam yaalam xoola yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci diggante boobu maa ngi ciy waxtaan ak sànq Oustaz Lamine Samb ak Serigne Mame Ousmane mbokk googu mu ko doon mbokk suñu Serigne Serigne Mansour borom daara yi nee na benn bu ci nekk. maqaama la boo xam ni jibril mi ko doon sàkku ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni ko wa ma ana bi qaari dafa ni ko miinuma jàng waaye waxu ko jànguma ndax yonent bee raw ñëpp mën na bind mën na liir waaye yàlla subhaanahu wa taala sant ko moo ne ko santuma la nga bind santuma la nga liir waaye moo raw ñëpp ndax bu bindoon ñu ne kon alxuraan moo ko créé maam Cheikhul Hadji Malick nii waaw Jibril ba muy dikk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yow Cheikhul Hadji Malick bu bëggoon nañ xam kañ la woon mu ni loolu mi ngi am lu jiitu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan na def ay gént gént bi lan la ci doon gént toog ak yonente yi di leen jàngal min baadi tain wa laamin summa sittati ashhurin raa kan filaahi subhi lal yahmi waaye yónni gi kañ la am nag mu ni wallahu arsalahu lil alamina hudan jullit ñee ko moom wa rahmatan yéefar yee ko moom kañ la am yow moo doon ñu ni isma daa jëslul bi daa waxee jëslul foofu mu def tawriya moom ngeen jàng ci su ma jumul duréy bi la wa shaalul mug yaddu fii muswaddihi misla shaali naari fii jëslil rada ca duréy bi la wallaahu yàlla arsalahu yónni na sayduna muhammad ci ñan lil aalamiina bookar si mu ni ba yàlla di yónni sayduna muhammad da ko yónni ci aalam bi yëpp ndax xaaj bekaay yonent bu ne bu la yàlla daan yónni ci benn xeet la lay yónni yonent bi rek la yàlla yónni lil aalamiina min def yëpp ba adduna di tukki te yonent yi ku ci ne boo daan ñëw da ngay déclarer ñëw muhammad hudan yonent bi yoonu njub la waaye wa rahmatan yoonu yërmande la Maodo loolu kañ la am mi ni ismada ba wéyee jazlun 40 bila wahami ay bila tashakkukin ba ko jibril feeñoo njatt ko ñetti yoon ba mujj bi mi ni ko jàngal bu ñu ko lan laay mi ni ko iqra bismi rabbi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa daw ñibbi dem ci suñu yaay Khadija ni ko zammilu nii xam nga ñaar am na zammilu nii ñëw na dassiru nii ñëw na xaj Mansour Sarr su yàlla ne yonent bi yaa ayyuhal muzammilu mooy yow mi muuru yaa ayyuhal mudassir mooy yow mi dëkku dëkku mooy nga muuru ngoon muzammil mooy ki muuru guddi balaa yàlla di yónni yonent bi naan ko xum fa anzir daf ko njëkk a wax a layla illa qalilan moo tax damay wax ne képp kuy wax ci yàlla wala ngay wax ci lislaam wala ngay wax ci sharia da nga war di jaamu yàlla guddi suñu maam Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu taala anhu dafa ànd ak borom ñaari kaala yi nga doon way sànq Cheikh Al Hadj Mouhamadul Mansour radiyallahu taala anhu guddi jot ñuy doxantu. ñoom ñaar ba romb buntu gouverneur romb benn garde mi ngi yor mi ngi yor fa tabaarakallaahu xeej bi taxaw maam Cheikhul Xaaji ni ni man Mansour ni ko kii lan moo tax mu foog ay nelawam ba nelawul mu ni ko dafay garde gouverneur mooy monte tey mu ni ko ah moom looloo tax nelawul guddi mu ni ñun nag ñu bëgg am cër ci yàlla di nelaw guddi bés boobu la bind bay bi yaa rubba lay liin bittu saamira anqadi mutajaawiban mutasaajilaati xanaami yaa rubba laylin bëri na ak guddi goo xam ne bittu fanaan naa man Maodo saamira anqadi di ngombalanteeg signal mutajaawiban mbir may tontuwanteeg mutasaajilaati xanaami xam nga loolay lan mooy pitax buy joy danaan kur kur kur kur kur kur Maodo nee su fekkee maa ngi tontuwanteeg jooyu pettax ba mooy fu muy fu mu naan kur kur kur kur yaa ngi dégg sama kurus naan taj taj taj taj taj loolooy mu ta jaayu ban mu ta saajilaati xamaam yi sama sëriñ Pape Sëñ Bay Abdou ni ma loolu muy prix baat looluy prix zahir bi mu ni xam nga prix baatin bi lan la mi ni ma pitax buy jooy danoon kur kur kur kur mi ni ma bindal kur ma bind kaaf raa mu ni kur kur kur ñetti yoon kaaf raa kaaf raa muy ñaata deux cent vingt mu ni ma dañ ko darbu mu ni rotalal zéro yi muy vingt deux vingt deux vingt deux vingt deux fois trois égal ñaata égal 66 66 mooy allahu mu ni ndeke Cheikhul Hadj Malick jooy ko tax lam ci daan dégg mooy allahu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi lakin la tafqahuna tasbihahum mu ni ndax yàlla allahu la tudd ah mooy ismu zaatu yàlla de la ndax turu yàlla làmmiñ dina ko tudd tey. waaw loo koy sëñ bi nga koy laaj. waaye la nga leeral ko. su lay baax. بلد به شمس النبوة أشرق di sant yàlla julli ci yonent bi di sant xaqu mi nga xamante ni tanazzaha an il xaqi fa kaana xaqan an xaqin li xaqin fi xaqin fa xaqaqa al xaqaa'iqa xaqa qadrihi wa miqdaarihi al aziim ورضي الله عن تاج العارفين أبي القاسم قاسم بين الحق والباطل وقاتم زهور الجهال المنكرين المنتقدين ورضي الله عن تاج العارفين بحر الحقيقة صاحب الفيض والختم والكتم أبي العباس أحمد التجاني ورضي الله عن لاتر فور remarquable versatile science juridique héritière le marabout des marabouts Sacré-Cœur de Babacar Sy et de Mouhamadou Mansour L'homme qui, de par sa plume et son encre, a réussi à combattre l'ignorance et l'exploitation de l'homme par l'homme. Seydi El Hadji Malick ibn ورضي الله عن جميع أبنائه الكرام ومنهم le Saint-Louisien instruit et civilisé Babacar Sy, père de Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Djamil alladi kaana jamilan mutajammilan bi jamalil jalili wa radiyallahu anna wa ankum ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullah ma tontu liñ ma laaj te xamuma ko allahu moom la sëriñ bi wax taqul wadaril wujuda wa ma xawa in kuntum in kunta muqtadan buru akamaali fal kullu duna allahi in xaqaqtahu adamun ala tafsiri wa ijmaali man laa wujuda min daatihi li daatihi fa wujuduhu lawlaahu aynu lmuhaali فالعارفون فنوا به لم يشهدوا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال الله mooy mooy sëriñ bi damaa dugal ndax bëgguma koo wax fekk xaw ma ko itam sax waaye mënuma koo ñàkk a wax ndax allahu tur yàlla yi imaam jabel biñ soxlaa yàlla moom moo nekkoon seen porte parole moo doon bëkk néeg bi moo tax xaaj ma il est extrêmement dangereux wax naa ko ni yenn saa ñu lay seet loo Maodo nga seet ko seet mënu ko gis fa ngay seet Maodo Maodo dafa néewul buñ ne la seetal entraîneur bi nga koy xool ci onze yi doo ko gis <laughs> du ma ko waxaat de ma ne Maodo il est extrêmement dangereux parce que yenn saa yi ñu lay seetloo Maodo nga seet ko ba ngoon doo ko gis nekkate fi ngay seet Maodo ak fa doo nekk dafa bokkul kaana minal mashaa'iqi wa laysa kahum bu lay seetloo entraîneur bi nga koy xool ci biir joueur yi doo ko gis da ngay wàññi ni am na ko manqué fekk ma nga ca ban ba mooy seet ki war a dugg ki war a génn yenn saa nga gis ko gars yi coow moo doon ko kaay toog da ngaa wax waaye defoo l' essentiel l' essentiel mooy lan moo doon ne ni kuy dugal bii laa bëgg te duñ encaissé moo doon ne alhamdulilahi zil ijaadi wal qidami xam nga waxuma la alhamdu waaye alifu alhamdulilahi laa leen di firil dégg lu ma wax de alif gi ci alhamdulilahi zil ijaadi moom laa leen bëgg a la ko Seydou Hadj Malick jëlee ah xam nga allahu alifa ko jiitu alhamdu alifa jiitu sëñ Moustapha ñu ngi lay ziar waaye sëñul xaaji maay dafa bokk ci nitu yàlla yi nga xamante ni ba yàlla ne ala subira bikum ñu ni balaa balaa mooy waaw mooy d'accord ba léegi sëñul xaaji maay noppam jógul ca la ma waxoon yàlla am na ñu nitu yàlla yoo xam ne bi ñëwee àdduna il a fallu ñu réanimer leen ñu activé waat seen sa téléphone sa puce ba demee ba yàgg ñu bloqué ko da ngay dem ñu désactiver ko waaye moo doon nee na sama bos code ba ma ko yàlla joxoon ba léegi kenn désactiver ko moom laay connecté woo ba léegi moo tax wii fi Seydul Xaaji Malick boo fi duggee gis Rasulullah da lay yomb kotu wii fi Seydul Xaaji Malick al amalu bil ixlaas iqtidaan bi Muhammad bi Muhammadi wal Ahmadi fi xadratayni gabatum ahmad ahla tijaani siwaakum bi xuduril badri adnaani Seydul Xaaji Malick alhamdulilah Maodo lu tax nga wax alhamdulilahi mu ni i'lam annahu lamma alima allahu ajda xalqihi an ilqiyaami bi xaqiqati alhamdi xamida nafsahu fi l adali niyabatan anhum wa qaala alhamdulilahi alaaji maa ngi ne alhamdulilahi kon alhamdulilahi Maodo ji ñi jàng alquran ñi jàng balaaxa dañuy wax ni al dana ñëw lil urfi dana ñëw lil ahdi dikri al dina ñëw lil istigraqi waaye ali seydul haaji mari mooy al yàlla santoon boppam yàlla ni sant naa sama bopp balaa kenn ñëw ko fi santate man ngay sant la sant gi ma santoon sama bopp moo doon ne yàlla yaa moom sant gi njëkk sant gu mujj gi yaa ko moom gi ma yor yaa ko moom alhamdulilahi alifu alhamdulilahi nga noonu alifu allah foofu la nekk itam waaye alifu allahu boobu itam ci ahmadu lay jëlee tey alaaji maalik seydina muhammad bi nekk ci asamaan ahmadu la tudd wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad falamma jaahum bil baynaati xaalu hada sihrun mubin waaye ba mu ñëwee bayna adhuril bashari dox ci diggante gaa yàlla ni ko muhammadu rasulillahi alaaji maa ne comme que alhamdulilahi ahmadoo jiitu woon mii ma mujj moo njëkk tamit bi sayyidna muhammad wàccee bayna alifi wal miimi mu jël téere bu ñu wax miimi ya commencé ko alhamdu muy alifu rabbaani ba ca asamaan tëj ko miim miimi ya mu ne alhamdulilahi zil ijaadi wal qiidam mi tubaab bi ne la terre tourne autour d'elle même la terre est mu ni la terre tourne mi ngi tourne ci biir mii mu xaqiqatul muhammadiya ci lay dox moom asamaan ak suuf suufi juróom-ñaar ak asamaan ak juróom-ñaar kuy wax ni Seydina Mohamed est un illettré parce que c'est toi l'illettré waaw way yatamurru mara saxaabi adduna tu suuf si li muy dox la terre est ronde ko njëkk wax dégg naa dañ ko wax yoon waaye nekk ci xaqiqatu Muhammad lay wax te xamu ko mii mu Seydina Muhammad moo ëmb suuf si asamaan suuf si ak globe terrestre yëpp moo ko ëmb waaye il faut nga dem fa am na aller retour al miim xadam dellu miim deel miim xadam dellu mooy bàmmeel bi bala ngay dem jaar bàmmeel miim ji ci ngay dekkeewaat taxaw ci ngay deel bi ci ngay duggee déggoo ma de juróom yooyu nag mooy allahu muhammadu allahu allahu ñaata xaraf la hmm? allahu muhammadu xarafi sidna muhammad xarafu allahu ñoo bokk waaye toxal muhammadu di allahu alaaji maali ni nag sidna muhammad bi turu yàlla yi toogee ba yàgg sidi turu yàlla yi dañ toog ba yàgg ñu def délégation waxaaboo ngi fi tawaaboo ngi fi mu ne alhamdulilah ndax turu yàlla yi bi ñu defee délégation ñëw ci turu yàlla bu ñu wax rabbu moo doon seen porte parole li ma wax yaakaar ni déglootuñ ko de ah délégation turu yàlla yi bi ñu départ yi gise sëñ Lamine gis nga ñoom wahaabu ak ñoom xafaaru ñoom tawwaabu dañ toog ba yàgg ñu yëg ni ñoom nekk nañ ay ministère waaye ministère sans portefeuille lañ xam nga tawwaabu mooy jéggalaakoon bi razaaku mooy kii wërsëgale bu fi wërsëgale kat nekkee te amul ko soxla wërsëg il faut yàlla créer ko soxla wërsëg pour mu jël fonction ñooñu nag bi ñu defalee seen dossier sànniwuñu xeer tojuñu institution taaluñu cas créé ñu cas de social dañu ñëw ba ci rab ñu jox ko ko ni ko rab bu waxal ak Allah Allah ni leen maa ne ci biti waaye daa am ku ma nekk ci biir. kon ah allahu mooy ismullahi ismu zahir bi waaye ismullahi aladam bi nga xamante ni moom la kilifa yi yor nga xam ni ida ma axasu xaddatan saara fiddatan buñ jëlee nit koo xamante ni dafa bon a bon a bon buñ ko jàppee da nga moo gën ci nit moo tax alaaji maa ni efficace moo tax boo ko indilee nit du fa nekk naan ko ay aiu di ko e-, créer problème dafay fexe ba dëkk ba mu jógee donte ni ba mu fay jógee moo fa yéesoon bu ñibbee gën Thierno Ahmad Baro dafa toog ba jeexal téere yi di sikkar bis bu ne douze mille salaatul ba yàgg mu ni war naa am sëriñ ñu ko nooy amee sëriñ mu ni xaaral ma dugg xëlwa bi mu duggee xëlwa gi sëriñ sépp toog Seydul Xaaji Maalik tiim leen mel ni ko yor ay xale ñuy jàng mu ne al ana la qad raaytu cheikh al mashaayixi joni noon mi yii ceernom ko woni ceernol ceernaɓe woni seydu haaji malik sy muni sérigne u sérigne sy waxuma ko par fanatisme waye mawɗo ñifi ɗon jang keccegerani laar bula mawɗo jappe ngaro cigaye mawɗo ne alhamdoulillahi zil ijadi wal qidami mumidina bi wujudi l badri te alhamdoulillahi rabbil alamin lañ ci xamoon si ndemi moo doon si mu ne dama la bëgg a jàngal ne rahmatu ñaar la rahmatul ijaadiya ak rahmatul imdaadiya sayyidna Muhammad nee na innama ana lil kawni ida rahima allahu ibadahu yawma alqiyamati bi rahmani aw rahimi fa innama ana atashafau lahum bi kalimati rahmati mooy bu taxawee ci buntu aljanna laaj caabi ja ñu ne ko nabi ni ko nabi nooy def damay taxaw naan ummati waaye li ci gën a neex mooy nabil Moustapha bu nee ummati Cheikh Ahmad Tidiane naan asxaabi rasul ni ummati Cheikh Tidiane ni asxaabi mu ñooy samay fi ma dugg lañuy ñuy dugg fi ngay dugg lañuy ñuy dugg ki ànd ak Cheikh Tidiane bu bëggee dafay dugg bu bëggul dafay dugg parce dafa war a dugg kon ñun ñëpp dañuy Seydou Hadji wa fii dakin xar xalaat bu ko way bu ko way ndakaaru daa am bës bu fi xew yi dégg naa bës waaye bës bës bi nga xamante ni du xew yi mooy rasulullah Maodo dafa doy wax naa ko barki dee ma ma ne Maodo bu doon nga bàyyi football dootoo jóg xam nga dafay jaar ni ba nga topp ko mu dellu si bala ngay fekk def na réglé na problème xam nga yàgg ci terrain bi amul solo xam nga lu am solo dugal bii wa fi dakin xaat xaalaat min shahri mawlidihi min annubuwati amal xubbi lil udami am na lu xew lu xew moo tax asra bi laaw li tax gars yi bëgg a problème mu Seydina Muhammad dem asamaan ak xaaba xaw say naaw adnaa bëgg doon problème ci ñoom dañu yaakaar ne yonent bi yóbbu woon boppam asra billaahu yàlla moo yóbbu sayyidina muhammad buñ la indilee jëf nag balaa nga koy wetti da ngay seet ba xam ki jëm jëf ji am na pouvoir wala mu am kàttan daf ko wala déet waa gént rek gént lu ci indi subhanallah lu ci indi tiitaru kenn dina gént di tiitaru saa yu démb gaan dama gént dem Tiwaawan laa wax luñ la ciy weddee c'est subhaana alladi asra yàlla tuddul lësi de lu tax mu ni lësi am na lu mu bëgg rek le silatul mawsuud la te gars yi yaa nga balaaxa dañu wa ani wa silatan in xayruha lam yulama wa an yuqarrara wa an yufahama mu ne subhaana alladi asra mu jëfandikoo ida idaafatu tashrifiya idaafatu tashrifiya asra bi abdihi kama taqulu walad al xajjaami li taxqiiri doomu sàcc bi pour mbalak booy bee tax nga wax ko waaye jaamu yàlla bi pour jox jaamu yàlla bi garaata tax nga wax loolu leylan tasmiyatul kulli bi iradatil juzi miqdaaru gaybihi lada al israai salaasu saatin Seydina Mouhamad aller retour trente trois minutes trois heures de temps la ko def trois heures de temps Seydina Mouhamad mooy zaatul ulumi wa minha li aadama al asmaau baatu illettré la ñu war a lijjanti illettré mooy lan illettré xam nga illettré mooy kan mooy ki jàng ba yaakaar ni moo fi raw dal ci kaw rasulillahi parce que l'intellectuel c'est celui kii sa sert de son intellect mais bu nekkee sa intellect yaa ngi koy jëfandikoo boo jàngee sa xam-xam di nga am keneen koo song ku dul rasulillahi ndax mooy aynul rahmati rabbaniyati mooy aynul ulumi mooy mu allimul jinsil bashariya li yàlla bi ni ca lawxul mahfuusul asgar ba sayidna Muhammad mooy lawxul mahfuusul aadam wa min ulumika ilmul lawxi wal qalami lawxul mahfuus la fa yàlla di bind ci sayidna Muhammad la ko jëlee di ko def ci ñoom kon loolu leer na mu départ yàlla yóbbu sayidna Muhammad moo doon doy waar su nga Maodo bu di la ko wax xam nga weddi di ko wax ci pénc da ngay créer sa bopp il ne faut des ennemis. c'est mieux de se faire des amis nag ah daal Carnegie nee na comment se faire des amis téeréem boobu pour se faire des amis ayez le sourire et rappelez que le nom d'une personne avait pour elle une très grande importance ah Maodo ni asrabi law tashrifan li miqdati hatta raa Maodo ndax gaa yi gis na mu ni wa fil isra'i qaalu ghayra azlin moo xasax ghayra zi azlin xawlaan gayra aslin ra al mawla moom Seydina Muhammad xaaloo ñii jàng ci téere yi di wax wax nañu waaye man Maodo neewul damay jàng ci téere di wax waaye dama gis alxaqiqatul muhammadiya moom laay consulté mu may wax ma laaj leen gars yi ki nga xam ne bu amee problème ci xadis day seet ba xam xadis bi wér na wala déet te incident ñu koy seeta awalawu saxix wa huwa mattasal isnaaduhu walam yasudda aw yual yarwihi adlun daabitun an karam mu an anun ka an saidin an karam wa mubhamun maa fihi raawin lam yusam ki nga xam ni moom xadis li mu ci xam rawaahu Buxaari rawaahu Muslim la ci xam bokku la ki nga xamante ni bu amee problème ci xadis day consulter rasulillah yi di ko rasulillah yaa ko wax nabi ni ko maa ko wax bu nekkee waxu ko nabi waxu ko est ce que kooku war naa mën a yem ak ki nga xamante ni ci këyit lay yem wala kam bayna yazidayni man ha laa assalaamu minallaahi wa rahmatu damaa ñëw sëñ bi dugal ma ci rek waaye damaa ñëwoon bokk min nuzaaril bi laa min abnaa ittaara taani wa dar bi yàlla nañu yàlla defal tawfiq sëñ Seynabou ñu lay ziyaara mënuma woon ñàkk ñëw ci bis bi ndax ñaar sëñ Sidi sëñ Seynabou ndax sëñ bu man produit baayam la je suis à le dire partout Parce que c'est Dieu qui crée les hommes, mais Seigne Babacar Abdul Aziz, c'est lui qui a fait de moi celui qui je suis. Et je suis fier à le dire parce que c'est la vérité. Assalamu alaikum